أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi nga xam si ñoo baaxoo di topp Daara Koki TV seen mbokk Ahmadul Xadim dellusiwaat na mu ngi leen di nuyu di leen ziar ñaan yàlla mu nangu ñu suñu weeru koor nangu ñu suñu koor si nangu ñu suñu koor def ko mu nekk koor yoo xam si borom da koy nangu gannaaw ñeent fukk fan yi mujj yàlla dafa ñu tawféex ban dëppook laylatul xadri gannaaw loolu nag ñu ngi. sant ki nga xam ne si moom la yàlla def ci kanamu barab bi muy sëriñ Muxtaar Naar loo nga xam ne moo jiite barab bi ñu ngi koy ñaanal di ko sant ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yàggal sa may ko lépp loo mébét na ko pour àggale fa diine yàlla def la ko si tawféex ñu ngi sant tamit professeur Abdul Xaadir Seck nga xam ne moom la yàlla def mu jiite fi ñuy waxukaay bi ñu tuddee Daara Koki TV di ki nekk technicien bi di ziar topp daara kooki ñëpp ak ñu fi def waxtaan ñu ngi nekkoon nag si waxtaanu daara kooki histoire daara démb ak tey mooy daara démb ak tey ñu ngi nekkoon di waxtaan si njàmbur di waxtaan si kooki ndax ñu commencé ren dina commencé koor gi commencé di waxtaan si njàmbur mooy mantex bi ñu dëkkee commencé tamit jiital tamit daaree kooki nga xam ne daaree kooki dafa nekk daara joo xam ne ci man dafa liggéeyam dafa yaatu si yëmu si njàmbur waaye Sénégal weesu Sénégal dem ba si maasale réewu xarbu afriqiya kokki nag dafa nekk na ndax borom xam dañuy wax ne njàmbur moo mujjee histoire jàngale Sénégal njëkk colonial bi nga la njàmbur la mujje daara kokki suñu borom dafay def xew li baree bari gannaaw bi ko ma Maxtaar Ndumbe sancee naa ko loolu mooy émission yi njëkk yi waxtaan lu baree baree baree bari si dund ma Maxtaar Ndumbe ak fan la yóbbu kokki yi ak naka la kokki meloon ci jamono yi maam Maxtaar Ndumbe waxtaan ti bi nga xam ne maam Maxtaar Ndumbe jóge na fii mooy ki ko wutu mooy Ahmadou Faxuja sëriñ ko Ahmadou Faxuja ñu jëbale liggéey bi léegi ñu ngi àggoon àggoon nag si marxala saaniya xam ne mooy marxala bi nga xam ne si batal bi mooy Njaga sax waxtaan na lu baree bari si Njaga sax fan la gënee àddina waxtaan na mu génnee ba mu ñëwaatee sañ ci kook gannaaw bi kokki amee ay tolof tolof mu ñëwaat yeesalaat liggéey bi taxawaat liggéey ba liggéey bi taxawaat desaat liggéey ba liggéey bi taxawaat waxtaan nañ tamit bi njëkk a demee Ndakaaru xanaa ñu bari daan laaj ci lan moo waral Dakar ak Koki Dakar ak Koki dafa nekk alaaq bu yàgg yàgg yàgg yàgg ndax daara ji nga xam ne moo nekk Dakar nga xam ni tey mooy ñu tuddee ko xam ne ki nekkoon ki si gën a siiw mooy sëriñ ndakaaru Jël Jóob Serigne Dakaaru Jël Jóob boo xoolee li ko jiitu mooy waajuram tey Mor Guddi moom moo jóge woon. gett ma gàddaay woon fii gett fi ñu tuddee gett nga xam ne nekk ci kanamu nekk si gànnaaru njàmbur mu nekk si enfant mi nekk si bu njàmbur mu gàddaay ak gett nag mu gàddaayee gett fa la jógee wàcc ndakaaru ngir tasaari diine kon Taymor guddi moomu mën nañu wax daara jooju nekk ndakaaru nga xam ni dem ba nga xam nekk pharaon si kokki bokk ci pharaon yi ëpp solo ci nga xam ni mooy moo commencé liggéey bi mooy ki ñu doon tuddee Taymor guddi Taymoor guddi nag waajuram mi ngi tuddoon Demba Taymoor Demba Taymoor waajuram ni nga xamee mooy Barget Taymoor Barget Taymoor moom Barget la woon moom boo xoolee moom bokk la ci Saaxewar Fatma ñu ñooy jóob jóobee ñi nga xam ñoo dëkk fi ñuy tuddee Geet nga xam ne ñu ñoo doon falu foofu ki ku daan falu foofu ni tuddee Barget Barget Taymoor nag ma dem ba mu yàgg moom it mu tuub bëgg a dugg ci diine li jullit la woon sax waaye bëgg a yëngatu ci diine bëgg léegi di tatbiq islam comme ni ko. ni ko ni ñu ñu baax ñëpp di defee si la xalaat loolu daal di ñëw jubali dëkk muy tudde ndaam dem fekk fa sëñ muy tudde sëñ Demba Binta loo mu jàng si moom gannaaw mu jàngee pare nag si la am taawam tudde ko Demba Binta Demba Binta moomu nag bërgët tey moom léegi jàng na bokk na si doomi soxna yi mooy ñi nga xam si ñooy génération bi nga xam si ñoo nekkoon mooy ñi nga xam si ñoo nekkoon di tasaare diine si Sénégal doomam Demba Taimour tamit jaar si yoon woowu doomam doom Demba Taymor tudd Taymor guddi nga xam ne moom maamam la nga ko tuddewaat moom nag moo jàng pare daal dem moom génn geet génn suuf yi dem génn njàmbur dem ba romb Sañaxoor dem ba Dakar Cap Vert foofu fa daaram moom la ñuy tuddee Taymor guddi pour tàqale ko ak Taymor maamam Barget Taymor moomu nag moom moo jur kii tuddee Serigne Ndakaaru Jël Jóob Serigne Ndakaaru Jël Jóob nag moom dafa liggéey liggéey bu rëy rëy rëy moo tax turam moom it des fi ba léegi ndax ndax moom sëriñ Ndakaaru jël bu jël Jóob moomu moom jël Jóob xam ni moom jamono ji xeex sëriñ si moom fexe woon na moomee lu ba kii bi mu jiite woon nga xam ne kii bi mu jiite woon nga xam kaa bi mu woon kaa boobu am nañ ay ndam si xare yu baree bari tool xare yu bare bari yàlla bind na leen fa ndam ba mujj sax ñi nga xam ne dañoo xaw na lor si beneen côté bi ñëpp dañoo daw dem Ndakaaru fekk leen ndax sécurité foofu la nekk gannaaw ba nga xam ne ñoom fexe na ñoom ba mucc si taax yi bi nga si moo nekkoon jamono buuru buur bi nekk dammeel amari ngoon a ndeel nga xam ne moom la defi yëf moom ñoom fexe na ba mucc mucc ci ab ayam taxawal foofu diine ndakaaru tey ba tey jii diine jàng fee taxaw loolu lépp bokk si ndimbalu suñu borom jóge si ki nga xam ne si mooy sëriñ ndakaaru jër Jóob ñuy ñaan suñu borom yàlla nañu yàlla defal koor jàmm kon nañu yemaale foofu ba suba yàlla na yàlla defal ñu koor ak jàmm def ñi xam si ñooy way topp Daara Koki TV yàlla defal leen xéewal defal leen jariñu def julli ñi nga xam ñooy war ñooy war weeru koor suñu borom def ñu ñu ñëpp ñu méngoog laylatul xadri wa sallallahu taala ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman